ay ñaar ñaar ñaaroo lu dee nekk si bi wala moolu kuluñaati mooy lan mooy nu ñoo yaree doomu adama woto yaara fang waaye ndekete woo lafita ndiŋol ye ke miŋo miŋ ti saama mbooloom loo xam ne bugg nañ suñ doom doon ko ëllëg a foundation o be damiŋ dafa mel ne fondement bi fu mu war a faaxee ko kulukulu ñaa ñiimaa la miŋ niŋ société la sartool mooy ñu jar suñ doom yi yarin boo xam ne dafa ànd baawo suwa kuutam be bee tentulam bee jayi la comme que dafa guddi ñu ngay gërëm ñëpp di leen a sant chairman Kerewan abaraka baake governor jërëjëf governor ila diamo beteyata sa kàddu yi rafet thank you thank you mbediyam la kotang min kumandi la beneen waxkat buñ fee aussi wolom mayor KMC a téléphone am mun na national mobilisati mooy mayor komba tubaab banko mante jo mante jon fila de ni man nana mbela taymo dila mo dolal de أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم ore ay Ibrahima mbee di speaker kontonna mi naata si président Oye Jang maa ngi nuyu speaker bi ku nga xam ne moo ñëw teewel si fii suñ président bi mbee di honorable secretary general minister responsible for presidential affairs honorable minister ku nga xam ne moo yore mbiri président bi ak secretary general bi mbe cabinet ministre sol min yalla koy bebi jam be be konton na ma ngi nuyu cabinet ministre yu nga xam ne ñëpp ñu ngi fi teewee tey feewu fee mu directeur ti permanent secretary mbe be konton na mbooloo ko xam ne directeur nga permanent secretary ñëpp ñu ngi leen a nuyu président o bari musol ay mini fanam bulanam pour yena mbe konton na mbe tentula mbe jayla président bi jigéenam yi ak mbooloo mu nga xam na leen pour ñu ñëw ak si fii ñu ngi leen a gërëm di a mbe seefool be kontoon na Paramount Chief to yàlla maa ngi nuyu chef yëpp si turi Chief mbe fawo kafuñoo ba min kera di governor of west coast region ti mba fanan konton na suma naataango bu mag di governor west coast tamit man ko nuyu bu baax fen fen be west coast combo ila committee sol mini be bijam be konton na la be jayila mbooloom koo xam seen comité ak seen ndaw ñu nga xam ne taxaw nañ liggéey bi ñëpp ñu ngi leen a nuyu di leen a nuyu hani kabi ngal ne ko west coast region alka KMC le juume ka tama ñaaming alka tama o ñaama ba west coast xam nañ ne da ngeen a toppandoor komba bi nu ñoo defee ngeen a jëfee noonu woto nde contanta baake kabring nga kibaaro ta nga di yàlla altamata ko KMC ka tama ñaaming kon doo man bég naa lool bu ma jëlee bi agal leen ko ngeen doxalee ko si nuñ ko defé ndela diamo jangata siala man tay suma kaddu du fi sakan mbé mi folat rong man luma ma wax rek komi nga nga saba sanjali kol ni badibu kol tentu nge jay luma luma wax moy wa saba sanjaal ak mbokki badibu yi ñu leena leen di leena sant ni moy ku kendo ke i murunta kay ko baraka su fekke nit ki defal na la jëf ju rafet nga wat ci mom ne ko jërëjëf wamu ala no moleti lolu dafa melni ci jaamu yalla la bokka kaatu naal yaa su fekkee ne gestu ngeen mbir mi nga am na ñin noon siña folooti foog naa lii mooy njëlbéenu yoon yee di ye place diya la ñu tànn sa doom jox ko place mi yaa tombong ye murunga kay kay ko a baraka ku nga xam moo ko tànn nga doyloo ko delluwaat si moom ne ko jërëjëf nga ci ngalla woto sabax sanjaalin ko lu mbaal folaale ko ala baraka ale min ke kon donc mbokki sabax sanjaali ñu leen a wax jërëjëf si seen jëf ju rafet yi koo xam ne moom la ñëw tamit tànn ko. Ndeka Faye la suma suñ bos. ñun dañ ko dee wax ne ñun ñoo ko moom suñ bos la. miyaati na nga foo. dalila bu tam wax loolu. ate karenta ñing Yaya Jammeh la man sa koto. moom si nguuri Yaya Jammeh bii la jàngee. ay université ke Yaya Jammeh le koto. mu jànga si université si nguuri Yaya Jammeh. a qualifié ta wole kono. te tamit qualifié na si nguuri Yaya Jammeh ay Bansaya fananke wala kono te dafa mel ni na si buur si nguuri Yaya Jammeh tamit naal yaa juwee place wol min diyala soo leen gëstoo place bu nga xam ne moom lañ ko jox tey kuloo ni fama jiyoo wala yaa diyala dafa mel ni yaru tabe ak suufel boppam moo tax mu jot place bi lafta min fula dorong APRC lu ma leen bëgg a woon rek mooy APRC Yaya Jammeh aning APRC nena ma ñina moo la Yaya Jammeh ak parti am bi APRC musuñoo ferte benn doomu adama yefeŋo feŋke doroŋ mbooloom loo xam ne jëf nga ko hanni yaamira komin mool mantere jeekaŋ soo foogee sax ne nit yi si bët sax ala wo bee jeekaŋ ne dama ne buur bi yàlla botam mu ngi si tegu wala dina ŋaniya dookuwo looloo tax liggéey kéenee mais wala foo ka moo bee loolu la ñoo wax ñëpp moo béyee dokoke APRCA. ñëpp lañ def liggéey kéne pour APRC. nee nga ne dokoke ñim parti yooyee. su fekkee da nga liggéey kéne pour parti bi. wallaay billaay tallaay fooy seen yoo soto jee. dama ne waat naa si yàlla ne doo ko mus di nim se am sa wal. ntol bee wul tawale kono. ñun ñëpp si loolu lañ màggee. woto mbaal daani la. ñu ngi leen a ñaan. na murunta solan dengo al se duwa ke president jame ngeen yokka president jame ñaan wo hakkille ñima min mbala xel mu rafet bu nga xam ne moom la am pour ala sa sabatinde a kono ndax yàlla bàyyee ko ko mu continuer ak rafet xalaat bu rafetam APRC dama ne APRC mini naata sainteng ñu ñëw léegi ñi nii mbaa fulaale ko al welcome dama ne ñu ngi leen a ubbil bu APRC dama ne APRC parti olo mi alonko dafa nekk parti boo xam ak doxili islam ñoo nuru ni dunta je ni bennu je ani dunta je sañi lu ngomi ne dunta nga dugg fa léegi ak ku ko fekk téeméeri at yaa moom yem benn fa si benn place bi ngeen em woto mbaa fola ni bota UDP ani NRP kon ñu ngi yegal mbokk yi ñu nga xam ne ñu ngi jóge ko UDP ak NRP alal fanje ko almeta APRC kono le dañ bugg ngeen gisee seen bopp ne ñu yàgg APRC ngeen anu APRC aka lundango faasa baaki te APRC daf dee faral ak nit torop wo bee mu islam wol si lii yëpp mbiri islam la ndik islam o fongle a fa ko ni moo tuubi daa naata foy sa hañindi l'islam moo won ne su fekkee doomu aadama tuub na ñoo bokk si si yow danga koo gën a ñemeloo yokk ko fit wala baat na la ay tujee te lii mooy mu des foofu andum pati mu pati diima baal ci te dama leen naan ne APRC pati bu neex la ah saka moɗo ya fojang surtout san nit wax na ko fii yaajo mini bota nan diyamola jey ko ay bota udp ñu fi jógee wax ñu la udp lañ bàyyee ko tooña tooña musuñima baalom dëgga dëgga dëgga dëgga jigéen bu rafet la bare kabraaɓe udp waaye si jamono bu mu nekkoon udp wallahi amulu njaw yaatale waxtu boobu jigéen bu ñaawoon la yàlla miyaati nangaw fo xam ngeen ban dalil laa tax ma ne leen jigéen bi jamono boobu tili woo tili alala tili woo tili di gis ne bés bu yàlla sàkka abi yaaya jame la fenjelale ay minke ñim bankoo kan di gis jëfi yaaya jame loo xam ne def na ko si biir andu ni be opposition yàlla sakan na opposition min be Gambia te soo nekkee si opposition surtout opposition mu nekk Gambia fii itol ni fon fe ñee ñaale katara kuyaariñ ñoom jëf ju rafet buñ gis yaayaa jamme def ko dañ dee gën a a te xam nga ne doomu aadama lu mu taaru taaru nii ñaakatu kuyaari su fekkee saa yu nekk yaa ngee ras wallaay te ñi ñaanoo la dama ne har kanam boobu du mus di rafet bare bii mbaa fulaay ko waaye tey dinañ ko wan ne saay saay west coast nkool brikam nkool baake la kuinti waaye léegi tey waa west coast waa brikam ay dinañ la def kuin yàlla mi yaatina ba dalila tax ma wax loolu ila ñi ñaabe findi kuulale ma ne dama ne sa taar sa dafay gën a feeñ APRC be wala ñaama APRC ñoo mel noonu APRC hani mu la njaw dama ne APRC soo ñaawee sax i ka ñii ñaale soo fa bokkee rek taar bi dafa feeñ goy ka tujje lool kono drong ma ne dangaa muslim muuñ di ree di haxataay rek wotoon ñin diyaa te siyaala kon donc fii wax ji du mun a bari atool mbaa fulaale ko ala baraka yéen luñ leen a wax mooy jërëjëf jëf saka Alberta West Coast le surtout ngeen jógee ko West Coast nga comité sol solo le mini bijee am nañ ay comité su fa jógee jógee ko mbaa fulaale ko allié dengi la dama ne na ngeen langaamu ñooñu na na ebul governor soto ñu farl ak suñu ebul governor bi mi yàlloon ko ebul governor bu nga xam ne APRC ko abi ka doyandi mbiri APRC musu ko lo woto albambu akoma kon do portu lan si gannaaw governor abe nga moyle ko ayal karafa bakari jeyte la dégg naa ne mu ngi leen kanta mu ngi leen dénka bakari jeyte ba leen doon di APRC national mobilisation waaye nag maa ngi leen a fàttali ne man Yankuba Colley man may APRC national mobilisation mbaaji bi la fombe wo approuve la le fonta approuve la wasalaam dinaa gëstu loolu ndax dinaa si nanguto ndax duma si nanguto